bokk ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla yàggal ko fi loolu te wéral ko ba yéen a jëm am ci liggéeyal Serigne Touba Xaadim Rasool lépp mu def ko nam ko soobee ànd kook taalibe waaye noonu lañ koy ñaanalee Serigne Amdi Mbenda Serigne Amdi Modou Mbenda Fall xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ca sàmm ko ba seen yéene ak seen liggéey bi ñu fas yéenee liggéeyal borom Touba ñu def ko nam ko soobee ànd ko ak taalibe yi. diko ñaanal sëriñ ahmadul muxtaar mbàkke xalifab seex muhammadul mustafa al karim sun borom bayiko fi lol yagal ko fi ca sam ko te wërel ko sëriñ abdul khar mbake khalifa sëñ seex ahmadou sëñ seex gaynda fatma borom nas yàlla bayiko fi yagal ko fi te wërel ko ak mbollem wa daru xuddoos gep waye nak di ñaanal sëriñ mustafa mohamed xalifab serigne mbake soxaloo borom ahibahi yàlla yagal ko fi lol te wërel ko ak kullu ku aju ci seex yi Xuddoos yi ak noo ci mën a bokkee ak foo ci mën a bokke ñu ngi leen di siyaare bu baax euh, bokki jullit di bokki taalibe yi tey nag bu ngeen ñu gisee ñu yànj nii tey ak déguisement bi nga xam ne si nii fu ñu ko solee muy sonnuwaar xel yëpp dem ci kër maam Ridial Seck xel yëpp dem ci kër Seex Ridial Seck gëm Bamba kon nag émission baa ngi noonu ni ngeen ko seetaane ci esthétique yi ak annonce bi ni tey jii danan dalal Cheikh Amdi Ridial Gaye ngir ñu war a waxtaane kan tey Baye Ridial sekk gëm Bamba tey Baye Ridial Seck gëm Bamba la ñuy waxtaanee waaye nag Cheikh Amdi Ridial danañu andil ca maamam ju sell ja di maam Ridial ndax digganteem ak sëñ Modou Moustapha fi la ni bu nuyoo fi la tàmbalee waxtaan wi waaye bëgg na noo xam daal tey Baye Ridial Seck gëm Bamba lenn ci ay jaar-jaaram ak dëkk bi mu gane àdduna ak ay woy juróom ak jukkoom ak bëgg gi mbëkk ab sëriñam ak jàmbaar gi mu jàmbaare ba tax mu dégg gaynde xelkom loolu lépp danañ ci ànd ak sëñ Amdi Rijaal Gay Touba Média TV ngeen di ci ànd ak Sada Ñang géwalu jànkatu xasida yi tey nag émission bi dañ koo jël jagleel ko Seex Sàmba Xaya lan moo tax ñu jël émission bi jagleel ko Seex Sàmba Xaya góomu bëgg goo gis sungu fu yëg moo koy faj Seex Sàmba Xaya jëmm la joo xam si sëriñ Baara di taalibeb sëriñ Moustapha moom Cheikh Sidil Makhtar sàng bi ni jokkoo dani ma sëñ Cheikh Ami Seck Ridial maa ko bëggal saa bopp miinu ma Baye Ridial bu baax waaye sëñ Cheikh Ami Seck Ridial ci laa gëmee Baye Ridial Seck gëm Bamba ma ne ko kon la sëñ Bay jaxata waxoon ni defar nga sa bopp ba defar aw jàmbur ba ñëpp jàng jàpp sa njàmbur kon dal na Baye Ridial Seck gëm Bamba danañ ci ñëw ci kanam tuuti dana gën a yaatu kon kon naka lañuy def mooy bàyyee kàddu gi sunu invité bàyyee kàddu gi sunu xarit bàyyee kàddu gi sunu soppee koo xam si daanaka jurut moo koy présenté bu ñu ko seetaanee ci émission bi xam ni média bu ci nekk dékk na ko micro ngir mu waxtaan ak moom tey nag ci studio bu mag bi nga xam si ni euh, yaakaar naa boo fi ñëwee jàkkaarloog photo Serigne Modou Moustapha da nga xam ne ba tey yaa ngi daaru doos fii nag mooy euh, daaray Serigne Khadim Ndiaye mi nga xam si ni jël na léppam jox ko Serigne Touba waaye soxna Kenne mbay di sunub jigéen moom it dinu jàppale ci wàllu liggéey bi moom it nekk fi ci kër gi ak mbooleem caméraman yi nga xam si mu tuddee sëñ xaadim danañ tudd mbooleem waa caméraman yi ak ñi nga xam ne mooy staff bi nga xam ne si ni ñi ngi aju ci Touba Média TV di jàppale sëriñ xaadim Ndiaye ci liggéey bi ñoom ñëpp ñu ngi leen sant ci weeru koor wi di leen ndokkeel di leen tatagal Amdi Dial Gaye jàmbaar yi sëriñ Touba jàmbaar yi Maam Dial ñu ngi lay nuyu fii ci Touba Média TV jërëjëf sëriñ Touba jaraw lekk Cheikh Ibrahima Fall jarama Sidiri Diallo Laye ak julli bok taal bi ñu dégg ak sétan ñu ngi leen wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh leen balu wax leen bal ak di ñaan yalla suñu borom yalla ñu boole jéggel di ñaan ci barke wéru tedd wu mag wi yi màggu yàlla ak daraja yonente bi barkeb alxuraan ak qasidi yi barkeb xaadim rasul barkeb seex jàllullahi suñu buntu ci sëñ Tuubaa no ngi ñaan cheikh Mamadou muntaha mu yàgg fi lool mbàkke te wér mo bokki mbàkke mi no noonu dañ ko ñaanale sëñ Amdi modou Mbend Fall fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ko xeyal señ Bamba gontal Cheikh Ibra lool yalla dogal te nangul koko di ko ñaanal cheikh mustapha Muhammad, mohammed mi sunu buntu ci ñom borom ahibba al qadim li nusrati al qawim waaye sunu buntu ci ñoom ñoy pënk muy cheikh rijal sekk mbamba ibnu cheikh amdi di la wax sëñ saddañang ak seigne khadim wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh tay fas yéene ànd ak yéen emission bi nga xamne ñaan nañ door ko ci bismillahir rahmanir rahim ñaan agale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin lepp lu ngeen fi deg ci kaddu bu jubé nan ko sante yalla gërëme ko jullee ko ci yonent bi sant ko Serigne Touba Khadim Rasoul ak jëmu ji ñakkar la Cheikh mohamed Moussa borom daru Khoudoss waye turandoom mo Cheikh Amdi sekri dial fasiyene ñew ak yeen ci émission bi lu ci dëng rek ngeen xam ndongal lu gatt fa saha ñak alli wa jang bi soriwul ñu wax amdou dial kay waye am ak bëgg yeen rek te bëgg yàgg na dugal borom fu ne bismillah ko suñu sàdd ah jërëjëf serigne amdou dial gay euh naa nuyo bi amna solo ca nonu nga ñu lolu nga ñu digit am ci yàqin am na lu bari loo xam si boo ko tojee danañ ci mën a barkeelu rawatina waa ahlu rijaalu laay kon xam naa dañ koy doori rek ci émission bii nu jagleel ci biir weeru koor gi tey jii di euh, juróom tey jii di juróom tey tey la fan loolu rek koor gaa ngi dem de ñaar fukka des ci weeru koor ñu jël émission bu rek bii jagleel ko bàyyi rijaal sekk gëm ba damay faral di wax naan am di rijaal xame boo gis daje moo koy def waaye jaxasoo jikko moo koy def sëñ Rijaas Seck gëm Bamba ku jaxasoo moom ci jukkoom doo ko bàyyi ngir aw melokaanam kon nag tey bëgg na noo xam tey euh, bàyyi Rijaas Seck gëm Bamba mi ñu tuddee émission bi euh, ginnaaw bu mu yàlla jaarale ko ci sëñ Amdi Seck Rijaal euh, ak way juróom bu jigéen nga andi ñu ci ak leeral ak ci ban dëkk la gane àdduna ndax tey bala ñoo ñëw ci maam Rijaal fokk na nga jukkal ñu nag ci Baye Rijaal Seck gëm Bamba mi ñu tuddee émission bi borom dogo yi. waaw kon Baye Rijaal gëm Bamba de. manam di domi soxna sona Ndaam amindam boko degge boo ko déggee ñoo xam soxna Aminata Lo lañ ko tuddee wajur ko tadd kin jàkkaarloo Cheikh mustafa sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke mi nga degge borom keur ngannaak tawfeex doomi sëñ Baara Ja moo ko tudd moom di Ami Ndaam ko mamam soxna Aminata Lo mi jur Cheikh mom Modou mustafa Cheikh mom leen bara di sek domi mam Daam sek tan nexe ko kañ maam Daam Seck di rek sëñ ko dekkal di murit saade kooku moo jur soxna ami ndaam ci wajuru góor wajuru jigéen wa soxna mati mbay sëy di bokk seen mbokku kajoor ñoomu neen di wajur yu sell soxna mati mbay sëy moo jur soxna ami ndaam sekk ñu koy ami sekk soñ mbamba ndax dañu laa bëgg a ci maam ya nga dikk ci wàlluk baayam Cheikh Amdi Seck Rijaal sunu sang sunu sëriñ ba sunu yaakaar ja sunu turandoo mu nga xam ne jëmu jiinu jàkkaarool borom kaala gu ci ri caraga borom jib gi ca muxtam nga xam ne ko xamutoon dara la wax ci moom xanaa indi ne moo fi indi raay moo fi def jumaa ji moo indi sëñ Bamba ci biir Cheikh Moustapha waa ji doy na dem nga xam ne mat na ba noppi kookee ko tudd ci ñetti fanam tuddi ko boppam tuddi ko Mouhamadul Moustapha na ko Rasulullah defee woon ci moom xarfan bi xarfin fii ci jàkkee sëñ Mbacké Madina te ba mu nekkee ca itikaaf ba te maam Cerno ci gàttal yónni xon nandooy moom Mamor Jaara mu ñëw mu ne bis bi del see ñu xam kun koy tudde ndax booba mi ngi ci intikaaf bi ba mu tuddee tur wañ koy tuddee ba mu génnee leen xool leen mbaggum ndajaram ñu gis ñu fa yónni ci Mouhamadul Moustapha doon koo xam ne moom yàlla far rek léeboon lu pen ci moom maa tey yàlla kenn mënu ci dara nee na boo bañee sam caat yilif sab taaw dee ma jëkke man Mouhamadul Moustapha ndax lu ko waral boo demee ca xasida wa nabiyu wa rasulu wal xalil wa huwa alxabibu wal imam wa dalil daa tax imam seigne touba Tuubaa mu wax tax na ku bañ sam tiar yilif sab taw Cheikh Moussa di ko njëkk say turandoo kenn du ne ci kanamam tay ji ñu da na wax ni man la fi man la fa lu fi way di am amena ko ci mom ni nga ko amé ci ñaq laxasaayu di takum nawal ak ak der ni ko dongay seigne Mbàkke sonn loolu Cheikh Moussa ba am ngeerum mom seigne touba waaye nak jub doy man jub kon jub lu ko fonk lu ko ñoroon la Cheikh Moustapha kon lu fi way di yeneen ak yeneen yoo xam ne wajuroo moo njëkk a jëkkati addiyey ruu joxe kon sëñ Sadd boo nee émission bi dañ ko jagleel tudde ko Cheikh ñu wax ñu bëgg na seer jaar rek bëgg na am te dana dana xam ne bëgg nañ ko taalibeem sëñ Moustapha moom sëñ Sidi Muxtaar kooku ñoo bokk Daarul Xudus Moustapha Aminata Lo Baara Aminata kon foofu moom man taxaw dañ taxaw foofu seer mm. jaar gëm Bamba moomu di doomi Cheikh Amdi Sekri Diall ak soxna amindaam moom jëmm la joo xam ne tudd loon rijaalullahi la gaar maamam rek moo ko gaar sëñ Mbàkke soxna loo Muhammad la laxasaay na ko dan fu mu ko teggee rek ci jéegoy dëggam yi ak cangam yi mu teg ko fa jël jéegoy njaam yi rek ya baayam ja daan joxe si am di jàll mu tudde ko sëriñ Cheikh faatim sëriñ Cheikh Fatim mee nga gis tey ñu duppee ko waajuróom ñoo bokk turandoo ñoom ñaar mais ca kër Rijaal jëruñam yaay jiite liggéey bi yàlla na fi yàgg tawér ak sëriñ Sam Seck ak sëriñ Cheikh Ami Seck Rijaal ak sëriñ Cheikh Maguette ak rakk yi yëpp sëñ Ousmane ba sëñ Ousmane maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ba ca soxna May Thiam jigéen ma ci bitim réew sama jigéen soxna Khady Amdi Diall soxna Sodari Diall bu leen limee du ma jóg mën naa lekk émission bi waaye ku ma ci tudd rek mën naa yóbbu naa ñu Thiès waa ko si Amdi Diall rek man Amdi Diall nu ma mel mooma lu ma am mooma bu ñu may dalal ci télévision Touba TV ki Lamp Fall ak site di bàyyi xel samay waxtaan di ma teral ngir jëmmi Serigne Touba Cheikh Amdi Seck Diall wajurum wowe mo ubbi woon école jang Serigne Touba ak diko ko fi ci darul khudus wax ma ca may deg mu ne am ndiri jàll des na tuuti ci kanam lolo way ëppale xam Serigne Touba dan la ko mané dan la ko rawe Dan la ko gëné ndax lu way di nga bu film di bind mba mu yor kay di jang jang Serigne Touba ci gëna jek mo ci gëna mo ci epp mu lolo man am luma ci xam 30 ans lama won wan ginau. na wax ne xala bala ay wan la ginnaw mané ci jang Serigne Touba di ko jàngale booba xaw musik, site xaw ma téléphone internet xawma len xawma télévision man na ci rek dama ko doon xam rek deg njàngale ma dégg njàngale ma ba télévision yëkëti kul seen bop ñu fekk ba fa ma nek jël li may def dal tasaare ko dal mu daan ci ñepp di ko bëggé nga xam ne ñi may bëggé te gisuguma len ñoo ëpp ñi may bëggé ma ngi leen di gis seen tranga di ñëw ci man ngir jëmmi yalla ak yonent bi sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom rek ka fi ne kon tey boo jëlee émission jagleel ko sëñ Tuubaa khadim rasoul moy Cheikh Ridial Gambamba ndax mu luñ am sëñ Tuubaa sëñ yalla ragal pété day xañi wërsëg daañu ci ñëw bu xam xam day day aju ci ay laaj xaw ma nu ngeen bëgg émission bi waaye euh, comme da bëgg ñu jëkk ci bàyyi jal gëm bàmba rek nii daal la wajur yi demee soxna Ami Ndaam muy soxna Ami Seck Cheikh Amdi Seck Rijalullahi mi ñu duppee Cheikh Moustapha ñoo ko meññ jaarale ko fa ñuy jaarale doomi soxna ci jàng ak yar ak tarbiya mu engagé Sëñ Mbàkke Soxna ci daara ji bañ gërëm ko mu engagé waat loolu kenn mosu ko dégg engagé waat mooy liggéey mottaliwaat boo demee fii ci tokkar bi tey donc yi fa nek ko ci demoon ne ana dabul rijal mu ne dama ne dabul rijal ma nga ne kot la ubi won fi ci Touba tayif bo xamne sine mo ne moo leen di màjjaleel añ ak reer teg ko dañuy lek ba njogoni ko seer jal bamba te xana xamone bay sadda dabe nap cheikh fa ku la ak islam nga bëgg ko dab bul nekk sànni kabar de dori rakka ak jang alxuraan ju bari dabe nap jaamu yalla ci jaamu yalla yi waaye joxe ñam wa luqmatun tasuddu fi batni afdalu min bi'a alf jami'a benn tibbum ñam boo jox nit ku xiif mu lekk moo gën tabaxal yàlla junni jàkka kon Cheikh Dial gëm Bamba ibnu Cheikh Amdi Sekri Dial bu jëlee bool laxas ndigam di doomi seex am woyof ak donga toog leen ma dem ma jale añ ak reer saxoo kalimatul xaq muy laa ilaha illallah dàq laa jàng alxuraan dàq laa jàng xasida dàq laa rawraat muy askar salaatu ala nabi asrar yi ñuy wax moom ah, du ko feeñal waaye xam naa ne bari ku ñuy rooti ci moom mu ñëw ci rooti ci moom moom Cheikh Dial ngir xam-xam bi ne ci mom mu di ko jarbul ba xam da dam wala demut tur yalla wu day jadd la wala wu jadd wu manqué wala mat ko ko seer yalla gam bamba yalla na fi yàgg téwér li mom dund na ko mom ndax dama ko xam nak lo xam xaay demba ma demba gën laa xam demba dañu ma tuddi am di sekri jàll may doomi jaaja gay ak penn ndiir te ger la sec feeñ jamono jang am certificat ci école Serigne Cheikh Bamba gayne Fatma Mbàkke yi ku waxoon ne ku jang xam ku xam bagn ko la yeb ku bañ ko la yab nangoo liggéey ku liggéey tedd da ittihaadu itbaawul xadim li taawuni wa tamassuki bi diin xawim Serigne Cheikh Mbacke gaynde Fatma moom mu nga xam ne mooy taawu Cheikh Moussa bi kooku ubbi woon école boobu nag wax ca loolee ñu jàng ca école yooyee ba xam ca lañ cay xam bañ amee saxaaratu durusul ibtidaaiya fa la ñam xanaa jooju Aliou de soriwul loolu de waaye ñëwoon ñeeru l'essence ba teg ndax kuñ ci sëqal plateau wax la ci Sëriñ Tuubaa loo xamul buñ demee ci alxuraan ñu wax la ci loo xamul kon yëg ci dund Sëriñ Tuubaa jooju Cheikh am defoon ci noonu te sëriñ Cheikh Gaynde Fatma jàngal na ko mooy hadis hadis allazi anin tasartu bihi yu'assuka Allahu wa huwa al-khulmu wa nahbu Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma nee na soo bëggee yàlla yëkk say daraje sipp say ñaaw te waxtaaneel sa maam xaadim rasul Cheikh am ni tàggat ñu ca nu dégg njàngaleem sëriñ Cheikh ak njàngaleem Cheikh Amady Diall ñu jël waxtaane sëriñ Tuubaa rek def ko muy sunu hadis safar yeeg cant yeeg màggal yeeg gàmm yeeg lépp Amady Diall jataayam moom gars yi dañuy wax ne sax day jataay ndax bu ñëw rek mo xam yeena neen ci politique ngeen neen wala ngeen walu aduna wala lu doon rek am ni moom bu ñewé mom nan la rek sëñ bi la jëm babu dem yono rek dam mi daan ko nga xamne ne noonu dégg na dam ya yaa bari njariñ borom yaakaari jaam ñi taxaram bamban gi faane wi lu la dégg na ko ci aduna am ci mag ñi ñoo xamne ne lañ ko daan wax jër seen cruise barkab kookee barkab kookee barkab kookee nak rek warmal tru wi serigne salim Mbacke daana wax ni turam mu tedd wi de lu ko warmal mu tudu khadim rasul yi turoowu de amna na biñ ko fa bindon ay jëm lañu wacc lek ko ba ca ndox ma turoowu képp koy kele kele ci sag maas di ko foyee yaa cay gën a fan ya ci gëna a gaaw a dee yaa cay gën a ñàkk barke muy tudd xaadim rasul yi mo ngi dañ ko daan woy di ko warmaal moo tax nga dégg ñu naan daam ya bari ñari barkeb borom baraag bi barkeb borom Touba barkeb borom jumaa ji bàyyi Cheikh mustafa bay Cheikh Fall bay Cheikh Abdoulaat bay seigne Abdou Khadir bay seigne Saliou Mbacke maami Cheikh Mountakha basirou yalla fi yàgg tawir borom mbeg mi koko seigne Touba koko ub lamb ji nak ne ko sereb dëggoom bi la a naat ca doqi góor ñu ñuy sa naat yoqi loos talale baat kenn yënguwul ci xarnu bi mu jàll toog ci gàngu naay bul rayal bul yàlla ranga koy médaille diwaan ba jox ko seen i gaay la àtt xarnu bi lu mu daaneel way wa ne ko jëlal sa bang te dem fanaan diggante kaw sa raaj ji naan notari te lekk nag te naan jaajëf daam mbàkke fal sëñ Tuubaa ngoog kookee nag moo defal maami seeri jàll gëm Bàmba ba tey rool tey jii nga war émission jagleel ko Cheikh Dialga Mbamba moo tax faaw ñu tudd ko ndax kooko waral mbir mi danañ ci dem buñu demee ba ci dugg ci laaj yi waaye daal nii daal ci gàttal li la ñu ko tuddee woon daal la damoon maamam daf ko muy tudd Rijalu Laay mu bàyyi néew kenn Rijaal ji la xotti déguisement bi tey ñu sol jaune noir moom rek ko sol ci jaune noir. moo ko njëkk a xot ci sol ko dikk ci cérémonie bi fii ci màggal gi Daaru Xulóos kër gii ñu jóge tey ba mu dikkee sol ko ci baas bi wax ba bàggal ne déguisement bii ngeen seel ma sol laa bëgg kuy ahlu rijaal na nga ko wut sol ko ci saw yaram ku la ko njëkk am raw na la ba faw rijaal gëm Bamba ko bëgg da ngay sol ko sol noir mu ne xam nga lu tax ma jublu ko ci du toilette bi moom ma ci neex ak zone noire bi waaye zone na sëñ Tuubaa moo nu war zone moo nu war zone bi mooy zone moo nu war noir bi mooy moo nu war zone nu war sonna nu war kon sonnal suñ tuwaa rek nu war ndax suñ tuwaa moo ne waq di hawa ijal la siina daamu fii xidmati wa hëb lahum maaraamu yàlla fajal aajo ko sax ci di ma liggéeyal lu mu bëgg àddina ak àllaxira na ko man na ko am xanaa kon loolu jana sonnal ko del wax ne wa kullu man xadamani aw saara fa najjihi wax la lahu aw saara yàlla ku ma liggéeyal mbaamu mu siyaare si ma na ko jéggal te musal ko jéggal koy bàkkaaram ne kullu man ahabbani aw mala kep kuma sop babu mbaa ma jaw ci man jeng ilay far suquhu dan wërsëgal ko ak jub aw mala tamay ko khalis loolu xanaa jarul daal liggéeyal ko hein wa kullu satamani au lama kep koo xam ne daf maa ŋàññ mbaa mu wax ma bon man sëñ tubaa ah fablahu taw ba taw si islama mbaa mbàkkee kep képp koo xam ne damaa ŋàññ mbaa mu wax ma lu bon yàlla na nga ko jéggal may ko tuub jóge ca loolee moo net bi ngay deg ñu ko ci wax lu bon ak wa kërëm day mujj yàgg rek wax yo leen di dugg rek ñu tu yegbulu waye kon ñu def leen lu bon ndax mu ri sëñ tubaa rek lañ gëm moo ne ci seen xol yi foofu la taw ba taw jooju wax parce que islaama ca foofu seen moo tax ndax moom rek moo wax ne yàlla mën la dimbali ci man ngeen jariñoo wallahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri saa naamin bilaa dararin man la yàlla dimbali kuy bindeef nag ma topp nga ne ci jéeri ji wala géej gi saa naamin bilaa dararin maay moom daal di wax ca wakaana xaqat ne lii aw sili la si di wan faañ bi yàlla waraa yaa mu xi neen an mit kooku moo wax ne yàlla jox na ma lépp dootu ko jël ah tey te nii jamia doona salabi wali taquudu su la waxta talabi wax ca mu xaddamatu am daan yàlla faj na samay aajo faj aajo ko àndal di liggéey xadallaahu haajaat yi bi man jaana biha wa inni biha abdul xadimul maa naqi kenn du maa mi Cheikh Mountakha Serigne Cheikh Dialla yi Serigne Touba képp Serigne Touba rek Serigne Touba dong noonu la Cerno Ibra Faati mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu ngeen déggee turu Seydina Muhammad wi loo leen mu ne ko sallallahu alayhi wa sallam mu ne sama tur bi bu ngeen ko déggee Cerno lu ngeen ci teg mu ne ko Mbàkke boo na ko wax ko fer yi mu ne bu leen ko ragale kenn bu leen ko rusee kenn Cerno ku ci dégg sama tur bi ci teg amul morom Cerno loolu ku koy def aajo joo am maa cay dugg fajal ko ba nga xam ne amul morom man de nattablu na sëñ Tuubaa amul morom te yéen xam ngeen ne amul morom kon sëñ Tuubaa ngoog faaw ñu tuuse ko wax ci moom ngir jataay bu ñu koy waxtaanee jar na sol dal lu weñ doxe ko ba mu xar kon seen site yi sëñ Xaadim ak sëñ Sàdda ak yi yàlla na borom yokk matériel bi dafa leen ci barke ndax yéen ngi def li nga xam ne kat wax na ko ci xasida gi ñuy wax mu xaddamaat nifaali wa ibqaa'i wa fawsi bila ana bi kaw nii xadimal Mustafa tatabayanu Sëñ Tuubaa nee na samay ndolleen nifaali wa ibqaa'i ak sama des si di liggéey Rasulullah wa fawsi bila ana ak sama texe gu àndatul coono am na ñu ne ko lu ko waral mu am mu bi kaw nii xadimal Mustafa nekk gi ma nekk jëwriñu Rasulullah yi tatabayanu dana bir mooy lii ngeen def tey dañu toog fii ci Daarul Xuddus di waxtaane baaxu Sëñ Tuubaa gi ak Cheikh Moustapha ak Cheikh Diallo Laye nit ñaa nga ca bitim réew ñaa nga ca Dakar ñaa nga fu ne di ñu taatan di ñu seetaan di nga di ca bég seen xol di sedd ba cay tuuri xéwal ay rongoñ di ca wàcc kon daal Cheikh Diallo Gëm moom émission bi lan doon ubbee loolu rek waa ñu jëm si di déglu ci raaj yi ba waxam foo ci jëmaat ak ñun ci laaj dëgg la dëgg la dëgg la sëñ Amdi Rijaal Gay yaakaar naa mbokki jullit yi yéen ñu doon seetaan ñëpp euh, dégg ngeen waxtaan bi am na solo lool euh, neex gum neex sax moo tax ma bàyyi la nga développé foofu nga nekkoon bu baax ndax ni nga ko waxee léegi rek ñun sëriñ tubaa rek la ñuy wër te sëñ tubaa moom la ñuy dund euh, loolu sëñ Gana di wax naan sëñ bay sëñ bi ku dëjul bàmba dëjoo kon yaakaar naa ku dëjul bàmba lu mu daj aw doj la wun ko dij ba bisub dëjëm ñu bot ñu bot ko fa dij mu daj fa lu mës a daj fenn kon Euh, ca lu benn kilifa naan ku daj bay dajale ñàkk ko am ko am ko koo dajal waaw am ko koo dajal kon mi ngi noonu sëñ baa ngi noonu ba tey dañuy daal di ñëwaat ci Baye Ridial Seck Gëm Bamba euh, moom ci ban daara la nekkoon doon laxasaayu ci daara yi sëñ. daara yi sëñ Mbàkke Soxna la ko joxoon muy tarbiya nii ñu koy defee. loolu léegi ñu naan gerte sekk ak gerte Mbàkke. gerte sëñ Ridial la ko moom. sanc ko ci ndigal Cheikh Mamadou Moussa 39 la sanc Taïf jox ko ndigal mu sanc gerte 1940 la sanc gerte gerle turu la ñam nañu ko wax ci ker ci ker gerle mom nak berlin la ko daan wax berlin ci allemagne ke kap wir bo rafet bobé nak la tax cheikh moustapha ma ko sanc loo da ko non dama señ ci penku mbàkki fo xam dama fa bëgg liggéey lo xam dañ koy liggéey di jëmi señ juma señ bàmba ji bëgg nga bok ci ñi ma fa yónni moo ku mel ni bay fallo ci irada ku melni señ sëñ jagne ci denki ku melni señ sëñ ahmadou basila ca ndindi borom gaajo gi ñu ngi leen di ñom ñep ak ku melni euh seigne amadou lo mere ndam lo mere lo sunu xarit nga xamne ñett fanu barax lu muy wërtal cheikh moussa ar mu jot ma koy waxtaan magal ndam ma koy di defal seigne sam jagn magal ñom ñepp di cheikh daru khoudoss ak seigne bara sar ak ñeneen ak ñeneen pour wax la ne nga gis minam sar fe danki fe hein ah, saadatu fe ah, hein ba fe may fe ñu entourer rek dëkk muy taif Cheikh Ridial nag féete ca wetu penku ga am na bis Cheikh Moustapha woote jëmm yi teew ñu ne Ridial ñëwagul ñu ne ah ñëwagul kay dafa xaw a sori Cheikh Moustapha ne leen soriwut ndax dem na tuuti ci kanam lu toll ni tey fi gi dina ko féete penku Cheikh Ridial bi mu ñëkkee daa yëkkati ñaari loxo yi moom ne maa ne ca guddi ga diggante yaari tey fii <laughs> maam Cheikh Ridial gëm Bamba ne maa ne ca guddi ga diggante tey fi Mbàkke <laughs> ak tey fi gee ca penku kon maa ne ci giritu gi Cheikh Moustapha ne ko toogal foofu ci gerle lu am ndar dana ma fekk Touba lu ma fekk Touba dana ma fekk Tayif lu ma fekk Tayif dana ma fekk gerle kon ger leen moom na mun dara li gone yi wax na muñu dara cheikh moussa rek lañ nam ndax xewul gi mu leen digoon ndox mu neex defe naa ko fa dem ba ñam ndoxum ger da nga ne mii ndox xanaa moom mooy dañu tudd société waaye mooy yi ñu filtré di ko di ko di hmm. ak nim ko fonké hmm. ba kun ko seen rek fini ni bayyi jall foko gis rek ne jambar yi seigne bakk lo digeentem ak seigne bakk lo sangam sangam mu tedd ba borom teyif ak bayla cheikh magi dan xirilo seigne mbacke mohammed yalla na yalla doli leram taas yu ci barkeem damay wax ne yoonu Sëriñ Tuubaa wi bari nay ponkal lool koo tudd mën naa àtte jamono Cheikh Moustapha ëpp na Cheikh Fallou Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir Cheikh Saliou ba ci Cheikh Mourtada Sëñ bara koo tudd mag doomi Sëriñ Tuubaa yi laa wax Sëriñ Abdou borom dër bi Sëriñ Souhaïbou borom màggal gi ñu doon def borom alxuraan ji koo tudd mën naa àtte jamono ñooñu damay wax ne dañuy ëpp dikkal ci sët yi dañuy ëpp ba tey Modou Moustapha yi Sëriñ Modou Moustapha Fallilou mom seigne fallou seigne modou bu seigne lañ ko gëna xamé seigne modou mamoun mom cheikh anta borom daru salam seigne modou aw balla mom mam tierno ibrahim ak cheikh aw balla lu way bax bax deug cheikh aw balla bax borom yaq faru sunu mang ko siaré seigne seigne ganna sa bobu han ah, nga xol ñoñu nga xamné ay seud lañ la la wax dé ëpp nañ ci jamono waye seigne sang bi nga tuddu seigne mbacké boko jëlon mohammed borom tayif doy doy jëm jo xamné né nga lu way xam ci jaamu yalla japp ci te man Taif nyoba ñu bàyyee ma ku sa bët xongu ma wéxal ko ku sa bët xongu ma wéxal ko waye ku xif ma jox la ñam Cheikh Mbacke mohammed neena seigne Mbacke mohammed wajur Cheikh Moussa Mbacke borom ay baar khadim li ñu sotti diin xawim damay joxe ñam di joxe ñam ba sa borom won ma ca payga ma xemem ko lol nak Cheikh Rafal non dabe nab borom kolaban. ci joxe ñam lu guddi guddi boko fekke fekkee wala Touba seigne mohammed ñepp ko xam wala nga bekk ko dana la jox ñam yo xamne dana la leer na loxo la la day bes tak te Moustapha Mohamed day waajuróom wu tedd woo rek la jël sëñ Mbàkke soxna loolu yàlla na fi yàgg te wér ndax koo xam ne danga daan joxe ba doo yor ñaar dërëm bis def na ko ci Dakar bëkk néeg bi mu nekkal ne ko man 3000 laa yoroon yónnee ko ne ko ku la noon guddi goo xam na ah, ko guddi tey gii ci la bokk te fekk laaj na ko ne ko dépasse suba bi lu ciy baax mu ne ko 200000 kooku bopp bi ubbi mu bëkk néegam mu ne ko waaye yàlla xam ne li may jox man néewu ma ko naanewu ma ko sàngara su bañee ma jox ko jaam yàlla bu ma ko jox ak tawe woon mu jox ko jaami yàlla yi kooku bopp bi ubbu ci fajar bi muy génn bunt bi am kat kat bu gaare ci tànkam mu na ko yow sëñ bi damaa dégg ne da daan def adara ba ay bu ñu bëgg a nodd fadar ma fajar ma bëggoon ko nag siyaare siyaare tey mu ne ko ah um na léegi sëñ bi dégg wax ko eh, ku la ne um naa yaa mujj ci man ma toog di wax ak yow nga génn naa um naa comme yoon ko da koy siyaare mu ne ko ànd leen ngeen ñëw waa ji jël enveloppe boo xam ne ay millions ca ne jox sëñ Mbàkke ne ko sama xarit la sama wóor dama ko bëggoon ba gi nga wax li tax sëñ Mbàkke Soxna bëgg sëriñ Tuubaa ba boo ko waxtaanee mu tuur ay xéwal Cheikh Moustapha Mbàkke Mohamed ay baal xadim ko waxtaanee mu tuur ay xéwal ni ko moom wax na lu leer nee na man Muntaxaa Baay Faal laa Baay Faal bu dëggal bu mën di doon yaa ma gëmal sama jëmm ji kon yàlla nañ dëggal ci liñ ne gis nga dëggal rek moo am solo ak setku mën naa ne borom yoon wee ko tënkal boppam du axi am dir jàll kay de sëñ Tuubaa moo ne sifaatu saadiqil murid bi ixtisaar arbaatun nasamtuha xaw faxtiraar melo ñu naa mu ne ñeent dong laa leen koy tënkal ndax damay bañ mu sori du ngeen ko mën a jàpp ñu ko sëñ Tuubaa bu ca jëkk mu ne asidqu fi mahabbati seyxi abad bëgg sëb sëñ ba faw su mam tisaali amrihi ay si war topp ay ndigalam saa yu sëñ bi ne fukk la boo wañoon muy fukk ak benn bàyyi sa fukk ak benn jël fukki sëñ bi boo wañoon sëñ bi fëñ ne neuf la nga waññu muy fukk bari sa dix te bañ na fi sëñ bi loolu dafa jafe tarkul i'tiraad mutlaqan baña am nak équipe tan li husni sanni bila inkar nak sama classe ku bari kat seen toile bi fini ne tax woyof moy sa yu señ bo xé rek ñu jëme doxé xel ak xalaat nañ ko jangat ay wa waxi señ toile ñu ci jangat jëfé rek la laaj señ muntaha basirou mbacké bo xé jëfé rek señ bass abdou khadir mbacké porte parole bo xé jëfé rek señ muntaha bo xé jëfé rek señ moussa mohammed bo xé jëfé rek señ amadou borom daru khodos bo xé jëfé rek amadou mokhtar señ abdou rahman kayne fatma ko ak ñu démé ñom bu mu ci tuddé kenn rek yobuna ñep bu ñu waxé jëfé rek ndax señ sangok ngok señ touba néna ci xol bu kaaw tuuba li abdin muridin saadiqin lahum bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati sëriñ soo soo tax muy wax ku leen liggéeyal ku sukk jëbal ci ñoom ku leen jox dërëmu addiyee ku leen topp ku leen ñaqal ndax ñooñu kat taj ful madaaja fi lay fi li junubuhum naa siina salma walay laa bil bu saaraati bu nit ñi reere tëdd seen kaw taal seen i clim ak seen i ñoom ñu sànni seen darub xar ferenkalaayu ci kaw ba fajar jot ne ci alxuraan a mën a ñoo lekk ndax ñom ñi ngi joxe xari afra suñ mbàkke da ngay jox mu jox la afi xari afra jox lay misui jox lay ginar jox lay pom jox lay auto jox la xaliss ngay xal xali keur nar ku nek son goko keur kër gan yi te bu joxe don taxa ñak ñàkk suñ du tabax palé te joxe taxu ñak mom rek fa tabax palé mbàkke soxna lo bay Cheikh Moussa mamet borom ay bal khadim li na sut dina xawim doy na exemplaire keroog bi mu joxee loolu ba waji def nonu ak waji waji ñu jox ko enveloppe bi waji ji da ko ne enveloppe bobu dajji ko mu dajji ko mu ne ko fukki jinne ngok jox na la ko mën na sunaa ci bëkk neegam la kenn la ci ñom ñu laqal ko turum mu jox ko fukk jinné mu def ci posam mu ne ko tegal ma fi li ci dess biñ ko nee mohammed taif dañ laa bëgg a ubbil compte bank dana xana da ngeen bëgg ma wor man bank du liggéey samedi ak dimanche man mohammed bu ngeen ma ubbilee compte bancaire samedi ak dimanche bank liggéey bu ma ni di sé soxla nu ma koy def dama ko naan négal ba altané te xaw luy xew so mu san bëgg sëriñ Mbàkke solo wax ne ko Mbàkke yalla nga am taw ngeerum yalla mu ne allahumma amin loolu ma fi bàyyi mi gatt gatt wax sa yoo ko nuyo jox ko adé ne ko rek barxel ko ne ko makk yalla nga am tawfiq ngeerum yalla mu ne allahumma amin lolou ma fi baye dimanche ko jëm mu ne jàpp adiye ne ko makk yalla nga am tawfiq ngeerum yalla mu ne ko amna ko ba nopi alternative alarba seigne mbacke mbàkke wàccu fekk Cheikh Ahmadou Mbacke gene fan ma fekk seigne Modou sa maam ju tedd ja nga xamne bo boo san bëgg mu tour ay xewal togal seigne Mbacke rek du seigne Modou sa léegi tongo ñi daxé ndax bëgg ga moy bëgg gi nga wax léegi ba nga tok ci mom di jëm yàq dara jàmbur noné mu doon dund nak la seigne Moussa borom néegoo ji mii di dund borom ay bal khadim leen sota di xam seigne cheikh Cheikh Dialga Mbamba bi mom moo ñu tàggat ci bëgg seigne Tuubaa gannaaw bu ñu Cheikh Amdi Seck Yàlla ak sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke ak sëriñ Mbacke tàggatee sëriñ Moustapha moo ñu ko pratiqué loo ndax moo wax ne na ñàkk ñàkk bëgg sëñ Tuubaa te mënuñu ko amee ci lu jaamu yàlla suñ kem kattan xaqa tuqaatihi ragal yàlla inna akramakum indallaahi atqaakum ku la gën mooy ku la gën a ragal yàlla waaye yu fi néew ci der bu ñuul néew ci der bu weex sëñ Tuubaa wax na ko walay sa yujibu sawaadul jism safaatal fataa wusu al fahm Cheikh Moustapha dégg ko ne kon ñàkk bëgg sëñ Tuubaa jaar ko ci jaamu yàlla wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni amna am ko ci sëñ Tuubaa def go xamne moy xol alquran alxuraan naabudu lañ koy wax kere bi mu ko joxe def ko sun borom da ko def faral del gi muy nafaani man lam yakun bi waladi wala bi walidin fa taaba xaladi ala la wulida khayra waladi wa khayra walidin bi khayri baladi bi alihi wa sabi wal humadi salatu salaam samadi ana del ga suñu borom a ko def far ko ndax amadu der gi bu nekkee ci xasida yi taalib di ko jàng suba ngoon ku deeti dem àjjana ku judooti dem àjjana te am sawara dama ko dig mu war a fees ndax kenn du maam yi sëñ Mbàkke sonn loo maam yi sëñ Ahmadou Mbàkke gën a faan ma maam yi sëñ Muntaxa sëriñ seeri jàll bi kenn du moom sëñ Tuubaa rek képp rek dong moom la yàlla def li mu ko def muy daggitu yërmande yàlla wu mu sànni rek wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas mu cëppeelu fii wax ne kullu muridin bi yaluusu yasxan wa innahu minal assaamu baax képp ku wéeru ci man mucc nga àddina ak alaxira lépp luy dañ la koy teggil daal di wax ne baana li kulli man lahu maqulu Sëñ Tuubaa nee na ku am am xel xam nga ne ana wasilati huwa rasulu xajuma ci ginnaaw ku dul rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye kon gaañ nañ ne ca gannaaw tamit daay ko moom mu ne ca moom Sëñ Tuubaa jëmu ju tedd ju jooju nag moo wax ne man ma la yàlla jariñ ci man ngir ni jariñoo jamaxta lii ma lam yakun wala yakun li mumkinin yaman lahu kun fa yakun illa ya xaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini bahabiya allahu kiraamal xulla wa bi baqi iya nabiya sarra xasaa inu rabbi futihat li wasa saat li xiril asaadun yaa waxraa ba sax ku ko wax ne wajhul la si yuhibbu ni yab yadu yow ma wujuhi sooda atab yadu xar kanam xol bi ma bëgg buñ dekkee ñu àndoon rasulaa di xar badara duñ la gën a leer xar kanam ndax dama bëgg yàlla ñu gën a bëgg sëñ tubaa yàlla ñu gën a xarit sëñ tubaa yàlla ñu liggéey sëñ tubaa kon sëñ tubaa ngoog Cheikh Amdi Rijal Gaye ci leeral yu am solo yooyu tey defe naa ni adduna bi biir réew mi ak bitim réew bi rawatina waa ahlu rijaalu laay fu nu mën a nekk ci adduna bi bu ñu seetaanee émission bi Touba Média TV danañ xam ni tey euh, danañ gën a xamaat kan mooy sunu jàmbaar ji muy sëñ euh, Baye Ridial Seck Gëm mbamba kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di waajal nag bisu badar bi ndax ku na xam na ne ñaar fukki fa fan ak juróom-ñaar mooy bisub xare badar ba boobu it incha allahu rabbi am na ay émission yoo xam si ni ñu ngi na tamit ay yoo xam si tamit ay mbokki taalibe waajal tamit di ko organiser ku mel ni sëñ Mouhamadou Lo ca Ngaabu moom it dana ko waajal waaye ku mel ni sëriñ Moustapha Moustapha Ndiaye di rakk ci sëñ Ahmadou Ndiaye Ngiraan moom it nekk fële moom it ci fële ca euh, fa mu dëkk noonu moom it da koy waajal ca ginnaaw euh, forage palem jógo bi rek jëm ca kaw moom it da koy waajal baax ku mel ne sëñ Moustapha Silla moom sëriñ Mayib Silla jàmbaar yi sëñ Modou Moustapha moom tamit da koy waajal ak ñeneen ak ñeneen di ko waajal ndax ku ne xam na ne weeru koor ci la xare badar am weeru koor ci la julli juróom wàcc ci la alxuraanu karim wàcc di weeru ngëneel weeru nag di weeru woo xam ne si ni weeru dimbalaakoon la kon mbokk yi yow mi am téeméer jëlal ñeen fukk bi jàppale sa moroomum jullit téye juróom-benn fukk bi te da nga koy def ba noppi yàlla fulal la ko bu subaa juróom-benn fukk boobee mën naa doonaat ñaar téeméer wala mu demee dem ba doon ab junni ndax yàlla daa bëgg kuy jàppale sa moroomum jullit yow mi togg ndogu ku ne xam na ni ndogu moom euh, li sëñ Gana di wax rek ñaar rekk a koy bañ kun ko togguloo wut ak kun ko yóoyotut waaye xam nga ni sëñ Xaadim ci kanam tuuti. kër sëriñ Baye Rijaal Sekk génn sonn waari comme ni ñu def ñu yanu di tëgg xiin ya ca suuf nga di ko dégg xam ni xiin yii ay wax la ndax démb ci àll bala kon yàlla Touba Média TV la télévision dans les prochains jours des émissions des interviews des débats des reportages des éditions de journal pour vous informer Touba Media TV, une télévision basée à Touba.